billahi min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi malik alhakim alaziz alkarim aljawad alaziz arrahim aljawad alkarim alladi dabbara alumuura bixikmatihi wa fatara alsamawat wal arda biqudratihi wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xadimihi wa ummati wa sallim taslima ixwat al iman wal islam wal ihsan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu lillahi wa rasulihi ji yijatu nuyoo bi kurama yu ak fudala yi di xasal mi nga xam ne mooy xalifa nuyu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa kër Serigne Omar waaye di nuyu euh, Serigne Makhtar mi nga xam ne mooy jëwriñam ak ngi mbooloo njabootuk sëñ Omar gi jëpp di fa seenee waxtaan tuuti ci ki nga xam ne moo ñu fi dajale tey muy sëriñ Omar bokkoon ci jàmbaar yi nga xam ne ci jàmbaar yi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuuli la waaye minal buñ ko doon misaal bi suñu borom waxee ci alquran minal mu'miniina rijaalun saddaqu ma ahadullah fa minhum man qadaa nahba wa minhum man yantasir ma badalu tabdila rijaal yooyu suñu borom lañ tudd foofu rijaal yooyu ci la bokk ca awliya yi dañoo am ay dawair yoo xam ne daairatu rijaal la tudd daairatu rijaal yooyu nag Cheikh Amadou Rafaay al Kabir qadasallaahu sirrahu day wax ne képp koo xam ne doo natt say wax alal kitaab wa sunna doo toog ci diwaanu rijaal yooyu moom nag mu nekkoon jëmm joo xam ne ay wax xam da ko daan takk ci alal kitaab wa sunna takkee di ko daan takk ci alal kitaab wa sunna nattable wun ne bi muy jébbalu Sëñ Tuubaa ab kaamil la jébbalu woon sëñ tubaa bi ko sëñ tuba di yeewit ab kaamil la ko joxaat ne ko amar dénk naa la alquran sa loxoom day joor sunnat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa loxoom càmmooñ ne ko amar ñaar yii loo gisu ci alquran gisoo ko ci sunna bu ci attewu kon moom lool rek la doon dund waaye bokk yi buñ bëggee xam jëmm jooju dafa bokk ci mina rijaali alladina baaxu naima dunia azaila bil aaxira gaa ñi nga xam ne danoo jaay xéewali àdduna gi nga xam day mujj jeex jënd ko àllaaxira ca gaañooñee la jëmm ji ñu waj waxtaane bokk waaye bokk ci ñi borom xam-xam yi naan min min min rijaal lazina tatatayyab bi zikrahumul qulub wa tumha bi iqtidaihimul uyub gaa ñi nga xam ne foo leen tudd leen fàttaliku xool yi ña koy dégg suñu borom day dindi ci ñoom ayib gu nekkoon ci seen xol suñu borom da koy dindi ci ñoom ba noppi seen xol day sell di teey jëmm ji ci jëmm jooju la bokkoon waaye bokk ci min arrijaali alladina baau fudulan bi zikrillah góor yàlla yi nga xam ne danoo jaayaan ay caaxaan jënde ko tudd borom bi subhanahu wa taala noonu ko ahmad bamba xaadim rasul waxa ci xasida naan baau fudulan bi zikrillahi xaaliqihim fa nawmu fi lleyli baau bil munajat tajful mataajia fi leyli junubuhum naasina salma wa layla bil bushaaraat fa haysumaa baradat layla bi bahjatiha anha tawallaw ilal mawlaa bi taaat nga xam ne tamit bokk ñi Sëñ Tuubaa di wax ne xadisum zikru muqnin naafi an chamadin la zikru xindin wa lubna fil maqaalaat kon kooku la ñu bëgg a am lu mu taarifal ci moom rek moom nag ku na xam ne na tudd woon Omar Diop Ndiouga Khary Diop la tuddoon Serigne Touba moo ko tudde Seydina Omar Ibn Khattab bi mu ñëw ci Serigne Touba fanweeri taari bi ak juróom-ñeent la fekkoon bi mu jébbalu Serigne Touba mooy ñeent fukkeel bi saxaabay Serigne Touba Serigne Touba ne ko noo tudd mu ne ko Ndiouga Khary Diop mun ne ko al yawma sammaytu ko bi Omar Ibn Khattab bés nag tey tudd naa la Seydina Omar Ibn Khattab na ko yaa ma fekkoon fa Omar Ibn Khattab fekkoon Rasulullah sallallahu alayhi wa Omar Ibn Khattab moo doon ñeen fukkeelu sahaaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëñ Omar Diop mii mooy ñeen fukkeeli taalibe Cheikh Ahmad Bamba ci yoonu murid loolu nag li firnde ji mooy arab arab yi dañuy wax ne li nit ki bind bàyyi fi bokkut ak li mokkal li nga bind bàyyi fi boo faatoo dafay des mais li nga mokkal boo faatoo da nga koy yóbbaale moom nag am na xasida goo xam ne moo ci doon tagg sëñ Tuubaa xasida googu mën tagg sëñ Tuubaa ci biir xasida ga maa ngi koy feddali loolu sëñ Tuubaa ne ko Omar afdalu min maa nga naan fasma ayaa qillu yaa waliyu bi an ismu omar faqiri li qawli man qaala wowu afdalu ay omaru mutahalul mufaddal loolu it Cheikh Abdou Qadir Mbacké tawkit dëgëral na ko ci ziyaara boo xam ne si Mamadou Habib Diop moo ko ziyaara ji woon ba mu mu ne ko sabaay si Omar Diop nu mu tuddoon mu ne ko Omar Diop mu ko de tur bu njëkk mu ne ko Ndiouga Khare Diop mu ne ko tigi xam nga lu waral sëñ Touba sopp tur wa tudd ko Seydina Amadou mën na ko déjee mën na ko ay jëfam dafa ñuróog jëf Seydina Abou Xataab Serigne Chouaib ba tamit maanaam indi na na ci ay leeral waaye moom ci boppam moom bind na ko ci xasidaam goo xam ne Sëñ Tuubaa la doon tëgg ci biir xasida goo la naan fasma ayaa qillu yaa waliyu bi anna ismu omar faqiri li qawli man qaala wow afdalu ay omar mutaharu mufaddal sëñ omar rek duñ fi nekk di wax ay xar baaxam waaye da li ñuy wax xam le mooy sëñ omar nit koo xam ne ku daan jaamu borom bi subhanahu wa taala kaana qawaaman sawaama da daan taxaw guddi daan woor boole woon aqiqa ak sharia ma waral bi ko sëñ Tuubaa yi tarbiya ñetti at yeeyu ko dana ko demal njàmbur Omar demal njàmbur te jàpp sa njàmbur te ñett bi ko fa bëgg lu ma yàlla mayut mayu ko rasulullaay sàkku ci àddina day jafe bu njëkk bi mu ne ko Omar na nga xam ne suñ borom mayut benn bakkan buy dund ko kaw suuf te doo faatu ñëppay faatu mu ne ko ñaareel bi mu ne ko Omar mu ne ko suñ borom mayut kenn kuy baax ca ngaa ñëw la amul kenn kuy baax ci kaw suuf am daraja wala maqaama ca nga ñun teguñu la ay traak ñu te mën a ko amar dugg ci dugg àjjana ca jaamu yàlla suñu borom mooy ko kenn daana ko nag dénk naa la ñett yooyu yow amar na ci sukkandikoo moo waral sëñ Omar radiyallaahu taala anu mboolem dénkaanam yi ak soññam yi lam ci daan soññee que lépp lu jëm ci lislaam lay doon lu jëm ci tawhid lay doon lu jëm ci li nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu lay doon moo waral mu ak sariya daan ko doxee ndax Cheikh Abdou Wahab Saarani day wax ne Cheikh Abdou Wahab Saarani day wax ne innal waliya la yati bi sari'an jadid bal yati bi fahmin jadid nee na wàllu suñu du indi sariya bu bees mais déggin wu bees la indi moo war Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee doon rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam na lil Mustafa nawaytu maa jaddidu sunnatul qurra wa ni ahmadu fahmu bi Sëñ Tuubaa indi woon doon ko tajdiida yoonu murit du sariya bu bees mais mafhum bu bees la kon loolu mooy li si Abdou Wahab Sahrani waxee ne la waliya bi shay'in al jadid bal yaati bi fahmin jadid nee na ab wali du indi sariya bu bees mais déggin bu bees la indi moo waral sëñ Tuubaa dénkaana yi mu daan dénk sëñ Omar yëpp lii da ko daan jëma ci sariya lii da ko daan jëma ci aqiqa moo waral sariya sëñ Omar ak xaqiqa sëñ amar ñaar yëpp ñu daan ànd ndax daana wax ne weeru koor masaana jot daana wax ne ku munta boole woor ak di ma liggéeyal man Omar na nga bàyyi sama liggéey ci def liggéeyu yàlla ndigalul yàlla kon kooku kuy dund sariya rek moo ko daan moo ko daan fàttalee waaye teewut tamit teewut message bi mu bàyyil njaboot gi muy message bu am solo message bi mu njaboot gi mooy laata muy génn jamono bind na ñeenti laaj yónnee ko si Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul sëñ Tuubaa tontu ko ci téere bu mat ñaari isib laaj bu njëkk bi mooy. diggante borom kër ak soxnaam naka la war a dunde sëñ Omar laaj na ko sëñ Touba fi ma bayna zawji wa zawja borom kër ak soxnaam yan comportement ak lan la war a dundee ñaareel laaj mu ne ko feetu siraat nan la siraat mel sëñ Touba wa kayfatul jawaas ak naka la ñuy jéggee siraat laaj bi ñetteel mu ne ko kayfatul mayta fi qabri nit bu faatoo ban suul ko naka lay nekk ci bàmmeelam yow Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul sëñ Omar ñeenti laaj yi bind na ko yokk ko sëñ Touba sëñ Touba tontu ko benn téere bi ñu wax miftaaxul xuyuub fii jawaabi xillina Omar Diop lii mooy caabi yu faddi ci tontul sunu xarit Omar Diop baatu xill boobu kon sëñ Tuubaa indi na ne sëñ Omar Diop mi ab xarit la te sëñ Tuubaa di wax ci naju ne xarit dëgg dëgg mooy kan mooy man ya duru nafsuhu li yanfaaka mooy kii lor boppam ngir jëriñ la ne na ko koy xarit nee na xarit dëgg tamit mooy wa man ida raybu zaman shadaaka shatatat samlu fii ka leeñ maaka ne xarit dëgg mooy ki nga xam ne bu dikkee fekk mbë jamono mbëkk la ba tasaare la mu jël lépp lu am jox la ngir yëkkati la sëñ tubaa nee na kooku mooy xarit sëñ tubaa nag nee na sëñ Omar Diop mi sama xarit la nee na mi sama xarit la ba mu koy tontu téere ba lan la ko wax ayhal muridu as-saadiqu alxaasiqu annaasihu kon sëñ tubaa na sëñ Omar Diop murid saadiq la hunaaka farq bayna sadiq wa siddiq taa bi duñu ko may mais kon danañ def tafriq lan mooy siddiq ak lan mooy sadiq moo war sëñ Tuubaa ne sëñ Omar Diop ayyuhal muridu as-sadiqu al-xaasiq xaasiq mooy ku ñaw an-naasix mooy kuy laabiré nafsihi ñal boppam wali talaamis yi ak dongaam yëpp na ko sa sa'altu ko laaj nga ma yow sëñ Omar an na ci ma leeral la la lakk ñeel la ma amara sanon ci la sariya di fii maa bay na sëw ji ci liggante borom kër ak soxnaam naka nañu war a dundee laaj boobu buñ ko tegee ci penc mi waxuma penc mi rek wala ñu teg ko bi di ci attee ci jamono jii say yëy rëng-rëng yëpp dana danaan le ndax ci laaj boobu rek sëñ tu sëñ Tuubaa ne sëñ Amar kër bu ci nekk war ngaa jàngal sa soxna faratee jàpp sunnay jàpp faratee ngëne euh, ngënee leen jàpp faratee sangu farata sunnay fa sangu farata ngënee leen sangu farata naka la ni julle naka la ni woore naka la ni aje lu ci nekk mu détaillé ko par détaillé nekk borom kër bu nekk war nga koo jàngal soxnaam te wër kenn ko jàng koo xam ne moo koy jàngal soxna laaj boobu rek bu ñu ko tegoon ci penc mi laa teg ko ci tribunal tribunal yi di ko ci attewoo kon yaakaar naa lu bari dana dañ kon sëñ Omar moom bàyyi woon na xel kon jamono ba tax mu jël laaj boobu laaj ko sëñ Touba radiyallahu taala anhu sëñ Touba tontu ko ci téere bu mel ne bu toll ñaari isib tuddee ko miftaalu ko fi jawaab bi xëy na Omar Diop waaye ci góor-góoru sëñ Omar ak njàmbaaram ak ñeme woon gim ñeme woon dëgg daan ko wax ba tax na sëñ Tuubaa mu ko masaan a gis si jataay rek danaan jaa alxaq wa zahaq albaatil inna albaatila kaana zahuuqa dëgg ñëw na caaxaan dem ngir lan doon gëm doon Seydina Omar ko Xataab waaye taalibe gi ko jàngale ndax dégg ngeen mën na ko ay muriidu as-sadiq ci biir ay ndénkaane moom borom màggal gi borom mbaa yàlla gi borom mbaa yàlla gi nag boo dégg ñu di ko wax mooy sëñ Tuubaa moo nekkoon Omar saa borom nee na mbaa yàlla ne ak ku la nangoo topp na sëñ Omar moo jub di siyaara ji sëñ na ko bi mu koy siyaara ji sëñ Tuubaa ne ko Omar xawtu nga fekk fi Jibril Jibril nee na sa borom nee na mbaa yàlla ne la ak ku la nangoo topp mu ne ko Mbàkke xanaa dañ maa beral loxo mu ne ko déedéet sëñ naa Jibril nee na sa borom moo ko defal ak ku la nangoo topp jooju nag ku la nangoo topp yow Omar ci li nga nekkoon yow Omar ku la nangoo topp ci lépp lu nga nekkoon doon ko jëf loolu nag mooy ca sari am ja ak ca aqiqam ja moo waral mu dénkaane dénkaane bu am solo mooy bi mu jàngale ak taalibi ci dénkaaneem boobu nag gis ngeen ma nga naan wa man araada an uti allah wa rasula fi hada zaman te jamono jam koy wax fal yakun bi yeddi cheyqin muridin bi yeddi cheyqin murabbin bokk mursidin kaamil cheyqi ahmadou bamba xadimu rasul jamono ji demi wax lii ma ngay tegtal boppam ma ngay tegtal nit ñi si kër ma sëñ Tuubaa ku bëgg a topp yàlla ak yonenteem ci jamono ñuy toll na nga wut sëriñ bu mat sëriñ buy yare tey jubale ca eggale ca yàlla daan na seyqi yaawul mutakallim ci dëkk ci grammaire seyqi sama sëriñ Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dana ne bu boobaa muridan lahu ngay ab taalibeem wa muti an lahu nga di ko topp kon ma ngay jàngale foofu lan mooy ab taalibe ak murid kon sëñ Omar ab taalibe la woon bu mu ab murid saariq la woon bu bu nangoon Sëñ waaye koo xam ne ku amoon yërmande la ci mboolem jullit yëpp yàlla diggante fu dogalit fu Sëñ Tuubaa mas fekk yu ci bari fekk na ko fa ngir sàkku ngërëmam moo waral bi mu jébbaloot ñetti at laam ca daara ji Sëñ Tuubaa yewi ko ne ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la man gërëm naa la yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la man gërëm naa la loolee nag la muy tekk mooy wàllu yu ak aarifuna billaah yi kenn ku ci nekk la nga am ci sa borom wala nga am ko ci sa sëriñ da ko koo ñàkk ba am ko moo tax sëriñ mënut a ñàkk gaa ñu koy wedd ñëpp kenn ku nekk am nga koo gëm bu dee ñu mën a doon am na ñu tuddee ay ay osa ay njiit ñu njiite kuréel yi ay am ay umara ba tey ay xulafa kon kenn ku ci nekk am nga koo gëm. am nga koo respecté am nga koo jox cër ñooñee ka ngay respecté wala nga jox ko cër wala nga gëm ko kooka mooy sab sëriñ moo tax sëriñ Tuubaa ne woon man faqada shayqan mursida fa sayquhu shaytaanu ay su qasada nee ku ñàkk sëriñ bu lay gindi da lay yóbbu ci sa borom foo man a dem na seytaane mooy sa sëriñ kon ab sëriñ mënut a ñàkk ca suñu borom bi ma xëy ci alquran na yaa ayyuha allazina amanu ittaqullah wabtaqu ilal wasila na ngeen ragal yàlla ca wut wasila wasila Seydina Umar ibn Xattaab ñu ngi ko njëkk a ab sëriñ bu ngeen demee ci téere bi nu alfasu wan najaat Ahmad Tijaani moo ko def wasiila la lañ ci njëkk a firi mooy ba yàlla di taa taw ñu dikk ci Amar wax ko mu dem ci Abdullah ibn Abbas mu def tawasul ci moom yàlla di taw koroog la Amar sukk ci maanaam bëtti omi Abdullah ibn Abbas na ko antal wasiilatu ilaahi subhaanahu wa taala kon wasiila mënut a ñàkk loolu waral na ñoom mag ñooñu kenn ku ci nekk bi nga ñëw Sëñ Tuubaa fees nga dell ba am xam-xam waaye egg ci yàlla moo la dese. ma war a borom xam-xam ba ne kun ma allaahi fa in lam takun ma allaahi fa kun ma man kaana bi lillaahi fa innahu yusiluku ilallah àndal ak yàlla wala nga ànd ak ku yàlla mu egg na yàlla moo tax suñu Tuubaa woon ku jokk ci ko egg danga nga egg waaye ku jokku ci ku egg doo egg wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksin fasal kon ab sëriñ munta ñàkk ci kaw suuf ñi koy contesté nag ba noppi naan tawassul boobu mooy julli mooy woor wala mooy nangam nangam déedéet jaww ji sax lii ñu tiim rek mu ñuy génne yi ko jokkale ba ba nit ñi mën ko seetaan te wasul la yooyu yëpp ay wasila la kon yooyu mënut a ñàkk ci kaw suuf waaye nag sëñ Tuubaa nee na woon kuy wutub sëriñ it buy wut sëriñ boo xam ne àdduna rek na ci moom na nga tànn ki nga yox sa bopp suuf ba qabla suxba wala tusaayib xumran aw daa raqba nee na na ngay tànn ki ngay jox sa bopp bala nga koo jox sa bopp waaye bu tànn koo xam ne àdduna ak banneex képp moo nekk ci boppam loolu waral mu ne woon jamono ngi joo xam ne sëriñ su bari ay fiir la ñuy doon ay fiir la doon loolu nag ma war a nit ku nekk war a seetaan kan ngay jox kan ngay sa bopp ma war a ku mën a sëñ Amar Diop nii yàlla teel koo yee ci ak yewuteem mu gis sëñ Tuubaa jox ko boppam defar fu sëñ Tuubaa ñëw defar ak njabootam ñëw defar ak njabootam moo tax borom Ibnu Asir am na lu ma waxoon yashrabu shayqan aarif al mashaliki yaqi fi tariqi al mahaliki waaye nag kooku yuzakkiruhu llaahu isaa raahu yusul abda ila mawlaahu loolu nag li li li li firnde ji mooy am na ci biir ñoo xam ne ay taalibeem leneen ñoo xam ne kenn ku ci nekk am nga ci am nga maqam moo xam ne xam-xam donc tuxoo nga topp sëñ sëñ kon nag ñoo ngi ñaan ci barke borom bis bii lépp loo xam ne def na ko ci bis bi rek sëñ Tuubaa nangu loolo ndax moom kat ci dénkaanam mu dénkoon sëñ Asan ñaanal na ñëpp nee na woon ci yeneen gaane ba ayaa cheyqii wa ruuxii wa jushatii wa jannatii wa junnatii ad'uuka bi juudika wa karamika wa fadlika an taj'ala nasli zakkaran wa unsa min ibadillahi saalihiina yow sama sëriñ yow sama ruux yow sama ajjana yow sama pakk maa ngi lay ñaan ci sa tab nga def sama njaboot man sëñ Omar Diop góor ak jigéen ñu nekk ñu bokk ci ibadillahi saalihiina yi gën a yi gën kaw ci kaw suuf bi muy def ci wax sëñ Tuubaa yi la ñaanoon waaye nag wa anta jaala mim man laa yeta ala udadalaayi na nga ne nan bokk ci ña xam ne fi yàlla wax yem leen fa bu leen fa yem nan fa yem buñ ko jéggi yalla nee na yem leen fii nan yem fa buñ ko jéggi daa ci teg ne wa man yeta ala udadalaayi faqad zalama nafsahu suñu borom nee na fi yàlla wax yem leen fa képp ku ko jéggi loola fo dal yaa ko teg sa bopp ñag bi dal ba ko ba ko yàlla ñagee ba noppi ñag bi ku jéggi ñag bi ba dugg ci biir ñag ba bu la fa jir mattee yowa bu la fa jaan mattee yowa bu la fa dég demee yowa boo yemoon fay ñag ba yem dara du la dara du la ca dal loolee suñu Amar Diop ñaanoon nag ñoo ngi ñaan suñu daf ko ci njaboot gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu